juguna fa munu ma wer foo xam kuy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi may deglu mbok aduna bi si soxo xabat sada mo ñu ak yeen tay expliquer li ligeyam liggéey si soxo nak si faj la ak bien-être ak jekal sa yaram bi ndax nit ki bo fage si bir ci biti war nga ko topoto ndax li dina mo ñe digal loolu ñu toppatoo suñu yaram an nazafat min al iman toppatoo sa sikkim toppatoo sa bopp macha allah képp gis ma sikkim bi te xam nga ne duñ sikkim nii rek foog mu dund lu dundal nag foog mu nekk lu naturel lu baax macha allah tey nag maa ngi dem France maa ngi jëm France 2023 le 11 juin grande promotion à Montreuil Montreuil salon bu mag laa fay def salon boo xamante ne bi du saraxule rek ñëpp laa ci woo ñu fekk si ma su soobee yàlla di ngeen am produit yu baax di ngeen am production wàññi leen prix ku jënd quelque ñu am lu la may yëpp promotion bu mag kon tey li ma leen andi tey mooy huile sikkim boobu maa ngi ko gis ma bépp place bu nekk Afrique surtout France bi nga xam moom laa def promotion bu mag bi huile sikkim boobu nag sama papa laa ko tudd ñu ngi ko Ahmed Biya maanaam Sikkim Ahmed suma Sikkim papa laa ko tuddee boo leen xoolee moom laa diwoo nii macha allah baax na trop am na xet bu neex am na vitamine am na ingrédients yoo xamante ni day dundal karaw bi na tax sa sikkim bi du dam dina tax mu gudd sikkim moom ñëpp a ko bëgg fu mu toll nii ak nga xam ne ko def modd sax kon si kaw loolu nag bu leen xoolee facture bi si biir facture bi lañ nekk nii.

waaye dama ko commencé quantité bu ndaw ngum jërë leen jëf seen dégluwaay bu rafet bi xam na ba beneen yoon ku gis vidéo bi nga ko partagé gannaaw France sax mu ngi en si ko yi kon jërë leen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.